حبا وطاعة وتبشيرا ودعوة إليه وتجديدا لدعوته في كل زمان ومكان والحمد لله الذي أعدنا لنكون جندا لهذا النبي الكريم الذي بفضله بلغت الإنسانية المستوى الذي يريد الله منه أن يبلغها وهو أن يكون عند كرم الله له قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر هذا بفضل هذا النبي الذي نحتفل به في هذه الليالي المباركة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يزيدنا جندا واقفين على بابه نلبي كل دعواته ونلبي الذين يدعوننا إليه ويعلمنا درجة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كنا اجتمعنا من كل أطراف الدنيا في هذه المكان الذي ألفتموه وألفكم ونجتمع بالمحبة وبالتزاور وبالتواصل في الله ولله وإلى الله حقا هذا قطعا مما من الله به على سلفنا الصالحين الذين تركوا لنا هذا الإرث العظيم وهو أكبر إرث ممكن أن يتركها السلف للخلف إرث محبة رسول الله إرث التنافس في سبيل الله إرث التنافس في محبة رسول الله هذا الرسول الذي أنقذ البشرية من الضلال إلى النور من الجهالة إلى العلم من الضياع إلى التواجد من آه، من الفتنة إلى السلام وإلى التواصل الإنساني الكريم كل هذا وجدناه بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان خلق على هذا الوجود لأن الله تبارك وتعالى بعث أنبياء كثيرون ولكنه لم يحلف ولم يقسم لأحد منهم بأنني أحبك كما فعل لرسول الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وإن شاء الله نكون من, من هذه الآخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل به ونظهر مودتنا وتعلقنا به هو أول من أحبنا وبشرنا بأنه يحبنا قال في بين في جملة من أصحابه يا ليتني رأيت أحبابي قالوا يا رسول الله ونحن لسنا أحبابك قال بلى أنتم أصحابي ولكن أحبابي من يأتون بعدكم ويحبونني كما تحبونني أو أكثر لو وجد أحدهم الدنيا بما فيها وقيل له أنفقها لترى رسول الله سوف لا يتخلف عن إنفاقها هذا الرسول الذي يقول لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه والتي بين جنبيه فكل هذا يتحقق في هذه الأيام فينا حقا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، هذا رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعنا هنا وهذا ما نملك نحن لرسول الله أننا نحبك نحبك فوق أنفسنا ونحبك فوق آبائنا ونحبك فوق كل ما نملك بدليل هذا الاجتماع الذي جمع كل الخلق من كل مكان ولا يخافون في طريق الوصول إلى هذا المكان أي تهديد أو أي إرهاب جاءوا هنا المتيقنين أن الوصول إلى هذا المكان تحقيق لما في أنفسهم من حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم وأن يتقبل ما قدموا في في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا من صفوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وعدنا رسول الله بذلك أن سيأتي من بعدكم قوم يحبونني كما تحبونني أنتم كما أنتم وهم لا لا يرونني كما رأيتموني فهذا فضل من الله ونعمة قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في إيه؟ أه؟ هذا الرجل الذي من فضل الله تبارك وتعالى من به علينا وهو أكمل الرجال وأفضل الرجال وأعظم الرجال وأبصر الرجال لربه وأعرفهم لربه كرمنا الله بأن جعلنا من أمته الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا فضل الله ونحن لا نملك أن نشكر الله تبارك وتعالى كما يجب ولكن كل هذا التظاهر ليس إلا شكرا لله تبارك وتعالى على هذه المنة العظيمة كل هذه السهر وهذه الليالي الكريمة كل هذا ليس إلا تظاهرا بالشكر لك الشكر يا ربي كما من بما, من بما أنعمت علينا من محبة رسولك والإيمان بك وحبا لسلفنا الصالحين الذين قدموا لنا هذا النهج العظيم الذين تبركوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم جندا مجندين في سبيل الله تبارك وتعالى آآ آه، آآ آه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk تدي tedd yi nuyu leen bu baax a baax آه، mbokk yu tedd yi teew yëpp jógee fu nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla ak feneen fu dul Mérina lu mel nii te defu leen ko lu dul rekk ne liñ jaayanteeg yàlla ak li yàlla jaayanteeg ñun dinañ ko dëggal suñ jëmm yaa ngi nii suñu alal yaa ngi nii suñu waxtu yaa ngi nii suñuy doom a ngi nii suñuy baay a ngi nii suñuy set a ngi nii ñëpp fang nañ leen ñëw ci sa ëtt bi nga xamne yaakar nañ ne dinañ fi amé rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax Cheikh ibrahim wax ne fi ben gamu ne yonent fanan na fi fanan bo xamne fi ci mbar mi bay nee na yónnanti fanaan na fi fanan bo xamne musuko fanané fen fanaanee fi fanan bobo batay dagut inshallah da du dag ndax la ko waral won mu fanan fi batay mo fi nek rek diko waral mu du fi fanan bon fanan bobu mi fi batay bon yàlla may nañu ñu ñu tagat suñu bop ñun ñëpp ak suñu no ak suñu bakkan ak suñu lu di am rek ñu tàggat ko pour ànd ak bàyyi ci yar boobu ñu doon jaar ci bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ nekk ci la ñuy def moo tax bu yonentu waxee ne kenn du mu bëgg feeg ma gënaluma ko boppam dëgg-dëgg lii yëpp wane nañ ne yow yonent yaa ñu gënal suñu bopp yow yonent yaa ñu gënal suñu bopp ndax bi sa bis jotee ku nekk jóge na fu nekk joxe boppam joxe alalam joxe lu nekk tukki tukki yoo xam ne tukki yu métti la tukki yi lu nekk mën na see jaar waaye loolu yëpp ragaluñ ko faalewuñu ko nañ àgg place boo xam ne óor nañ ne bu ñu fa àggee xetu yonent dinañu xeeñ te ak kan xaqan ku am xel am am bakkan mën a nokki di nga gis ne xetu yonent xeeñ na la ah yal nañu ko yàlla xeeñalal ñun ñëpp fii ci àddina yal nañu ko yàlla xeeñalal ëllëg ci àllaaxira ñu gërëm leen ci bu baax a baax ñaanal leen yàlla ak ñaanal suñu bopp ñun ñëpp amuñ dara lu ñuy wax yow yàlla ñu ngi nii ay jaam yu amut mënuñ attanuñ yow rek yaa am yaa mën yaa attan yàlla nag ñu faree foofu fépp fuñ faree ñàkk yàlla nag yàlla nañ ko faree sa am fépp suñ faree tële yàlla nañu ko fekk ak mën fépp ak ñàkk xam yàlla nañu ko fekk yal ñu ko faree ak sa xam-xam yow yàlla yaa am loolu yaa ñu ko defal yow yàlla xale yaa ngi nii yu ndaw jógee fu nekk ci àddina bi dara jëleewu leen lu dul ñëw rek beesal seen bopp gëm yow yàlla yàlla bu leen bàyyi yàlla bu leen wëcc yàlla yàlla nanga leen taxawu niñ taxawoo sa guddi yonent bii guddi Cheikh Ibrahima ak yii seen kàttan ak seen doole ak seen mën-mën yow yàlla yàlla bul sànk loolu ci ñoom yàlla na ko feeñal ci ñoom muy barke muy dund boo xam ne dañ ko yëg dinañ ko gis yonent leeral seeni xol leeral seeni xel leeral seeni bëgg-bëgg loolu yëpp moom la ñuy ñaan yàlla di ko xaar ci guddi gi te incha allahu yàlla may nañu ko si fii fanguñu rek ngir ngir euh, laayiban wala wan yàlla ëpp na loolu waaye daf ñoo fang fii pour façon nit bu nekk ñu daje feeg moom ñu ñëw fii lu nekk ngi seen biir lu nekk ngi seen biir indi na wali yu yàlla yaa ngi fi wala maawu yaa fi buur yaa ngi fi nit ñu kawe ñaa ngi fi nit ñu gën a kawe ñu gën a baax yépp yàlla tànn na leen indi fii te yàlla dajalewu leen rek pour ku nekk rek dem bi mu jeex waaye def fii des ak ngëneel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 yal na la fa yàlla yóbbu bo demé da ngay xëc yàlla na nga ci jot lool lañ loolu la wax lool moy suñu taxaway lool moy wax suñu digënté ak li xew ci euh euh suñu digënté ak président ñëw na ñëwut parce que euh ñëwu da fay rafet ci suñu biir rek fay rafet ñu contané ko mais terewul bu ñëwut tam li wara dox yëpp a ngi dox alhamdullah rabbil alamin euh ñaanaat bu baaxa baax ci xale yi nga xamné yéné ëlëk yéné taxaw ëlëk ngeen taxaw ci seen bopp d'abord ngeen taxaw ci seen bopp d'abord rafetal rafetal seen bopp rafetal seen jikko yi rafetal seen càkk ni ngeen di sàkkoo rafetal ni ngeen di utee rafetal itam nu ngeen di xamee ndax doomu aadama munta sottal dara te tabaxu ko ci kaw xam-xam boo xam ne xam-xam bu wér la jàngantu du xam-xam jàngantu rek licence doctorat nangam loolu yëpp du xam-xam xam-xam

dëgg-dëgg mën na koo jox fit mën na koo ñemeloo ba lu lu mu def rek bëgg def lu ëpp loolu waaye su fekkee lu mu def rek nga ne baaxut baaxut baaxut baaxut yow yàlla lig may baaxut yow yàlla lig ma may baaxut yàlla def ko yàlla def lay wane loolu baax loolu ma may la te gërëmoo ko dama lay dolli lu la gën a toroxal nag te doo ci mun dara yàlla ñu ci yàlla musal ah nangu nañ nangu nañ nangu nañ li xew yépp ci président Macky ci seen relation ak moom ak relation am ak ñëpp ci àddina bi nangu nañ ko d'accord nañ ci nu mu doxalee rek ñu ngi koy ñaanal yàlla mu am tawfiq pour Sénégal mu am tawfiq pour Sénégal mu dimbale Sénégal mu génne Sénégal ci lii mu nekk mu génne Sénégal ci ñàkk yo Macky laajuñ ko dem nga ngénte dem nga laajuñ ko dañ koy laaj marché bi fu mu toll dañ koy laaj tali yi nu mel dañ koy laaj économique bi fu mu toll loolu lañ koy laaj loolu lañ koy xisaabee waaye demoo ngénte eh, kenn ko ko xisaab kenn bokkut ci bokkut ci programme te loolu yëpp nag dafay aajo ñun ñëpp nga xam ne ñoo bokk réew mi Sénégal réew mu bëri réewu wax la ñëpp a ngi ngalal ngalal rajo socio comme socio socio ah réseaux sociaux yi boo ubbee nga ngalalalal la nga te kenn waxu dara da ngay wax rek pour ne maa ngi nii te waxoo dara ah nañ jéem a at ñun ñëpp ñu delluwaat ñu delluwaat ci suñuy tànki ay maam ak i ndax ñu mën a liggéey liggéey boo xam ne dina mun a lii ñu donn te lu rëy la buñ ko mënta dolli itam bu mu wàññoo ko ci suñu loxo te yàlla bu ko wàññi ci suñu loxo li koy dolli nag mooy ci jàng ngeen tollu jàng leen bu baax a baax jàng leen am yar am teggiin yaatal gan ñi gan gu ñëw ak nu mënti ñëwee fonk leen ko yëg leen ko parce que dafa ñëw rek pour liggéeyal seen dëkk pour taaral seen dëkk ak nu man di ñëwee na ñëw ak ay motocyclette ñu jiite ko tout nangu leen ko rek parce que dafa ñëw pour taaral seen dëkk bu seen bàyyi oote wutoon du ñëw bu seen maam oote wutoon du ñëw bon nag na ngeen fonk gan yooyu nga xam ne dañuy ñëw rek pour rafetal seen dëkk ngir yaanjal seen dëkk bu ko defee loolu dina leen gën a may ngeen mën a tabax li nga xam ne moom la seen maam yi tabaxoon da ngeen ko mën a yokk waaye di mer di saaga ñi di leen sànni ay xeer loolu yëpp manqué rek la moo ko def manqué rek man nit ku manqué rek mooy mer di saaga waaye nit ku mat bu ñu ko saagaa sax dafay kontaan parce que xam na moom lu tax ñu saaga ko ah xamoo nit dina am lu ko dal mu naan dañ maa def dañ ma fekk kenn defu la yow rek yaa def sa bopp boo jaaree fi nga war a jaar rek amul dara looy set sa àddina looy ragal wala looy tiit wala looy mer waaye boo jaarut foo war a jaar nag bët bu set rek yaay bàyyi sa bopp lu nekk ñu la koy teg nekk ñu la koy wax bon nag loolu yëpp da ngeen ko wattandiku ngeen yar seen bopp bu baax ci li nga xam ne moom ngeen doon ci seen maam ak seen maam yu mag yi ak seen baay yi ak seen nijaay yi yéen ñëpp kawe ngeen doon yéen ñëpp mbaax ngeen doon yéen ñëpp yëkkatiku ngeen doon bu leen fi nekk di xool keneen lu amat lu nekk nekkuñ fee nekkuñ dara nekkuñ lu ëpp li ngeen nekk nekkuñ lu gën li ngeen nekk nekkuñ lu gën a kawe li ngeen nekk ah parce que xale 12 ans. tari alxuraan ah bërki démb rek sama xale suma doom nii la yam bu tuuti may tari ah, ah, wal mursalaat yi ñëw ba agsi ci benn laaya ma damm ko mu ne ma papa du de ma ne ko ah naka la mu dal li may wax naka la lu ko si man rek ma dal li ànd ak moom ci li mu def bon loolu mooy suñ doon loolu mooy suñ doon loolu lañu am ku ko ci am am nga loo xam ne kawe nga mat nga bokk nga ci nit ñi boo ko amut itam na àddina yëpp nekk ci soron tànk amoo dara amoo dara ah yal na yàlla dimbale leen yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla màggala yal na yàlla màggal euh, seen seen liggéey def ko muy liggéey bu barke fàttaliku ko fàttali leen itam ansaaru diin ansaaru diin ñun ñëpp nañ ci adhéré parce que mooy moo moo ñuy boole moo ñuy boole lu nekk mën na cee génnee ci ci ci teraanga ci kawe ci mbaax ndax yàlla moo ko santaane nañ dellu ñun ñëpp ci ansaaru diin ñu jàppalanteeg ansaaru diin ñu dimbalanteeg moom buñ buñ ko defee danañ gis njëriñ boo xam ne xamuñ ko woon pour lan parce que ansaaru diin bàyyi wax ne def leen lu dugg leen ci biir ah même ñaari nit ngeen dugg leen ci biir bon nag bu koy def dañuy topp ndigal lu bàyyi te ku topp ndigal da nga gis njëriñu topp ndigal lu muy tekki kon yéen ñëpp maa ngi leen di oo ñëpp maa ngi leen di woo commencé ko ci Lamine Makki Ahmad Khalifa Chafiow yéen ñëpp maa ngi leen di woo ngeen adhéré wu ci biir ansaaru diin adhéré boo xam ne da bëgg mu yokk mu jëm kanam te defuñ ko pour xeex defuñ ko pour xuloo defuñ ko pour euh, wujjantee kenn dañ koy def rek parce que yoon la boo xam ne dañ ko war a def ndax ñun fii dañoo bokk ci àddina bi dañ cee war a bokk dañ ci bokk nag ak yoon boo xam ne kuñu ñu sànni bant itam tant pis nañu sànni ba nañu sànni ba neex ko ku la saaga na la saaga ba mu neex ko lu mu lay wàññi wàññiwu la dara mais yow demal fi ngay dem rek ah wala nu nga ko waxee te te te siirul kaafilatu wa tanbaxul kilaab ah tan tandaru wa kaafilatu te siir mbaw mbaw mbaw mbaw mbaw rek waaye yow jëmal fi nga jëm rek yàlla ñu fa yàlla àggali yàlla ñu yàlla dëgëral yàlla ñu yàlla may bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla may suñu aju gi ci baye yalla nako yalla gëna deugël parce que amut goor ci adina amut goor ci adina 20 20e siècle bi ñu genn deug deug amul kuko marqué ci diiné ak xam xam ku enni cheikh ibrahima رضي الله تعالى عنه يالنا يالا يوكو ليرام ني نتا ميديال نيو يالا تاس سي باركيم خالي بي دون جانغ ليغي دوم نزور بي جانغ بي جانغ مي نزور ورون نام نا توك دنا خامني داف دون جيم وايي كيك يالا فينال مو مان كو ييب ييب دافاي لين fu seen bàyyi tollu rek bu ngeen fi toogee nañ fàtte seen bàyyi ndax li ngeen def ndax loolu yal na leen ko yàlla may yal na leen ko defal salaamaaleykum